asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi noo ngi lay nuyu di la ziar eh, di am laaj bu jëm foo xamante ne bii mooy ci la xelu doomu aadama yépp nekk te mooy dëgmal mu di màggalu Tuubaa di fukki fan ak juróom-ñett ci safara ñu gis ne bis bi ñor na sëriñ tubaa lool waxal na ci boppam it lu bari doomam yépp it yàgg nañ cee soññee mu mel ne dëgmal na te am na waajtaay wu rëy woo xamante ne bii laaj na ko ñu boon a xam rek darajey bis boobu ak ni mu toll sëriñ bi ak fi mu toll ci njabootu sëriñ bi. waxtaan ci màggal Tuubaa dafa lëkkaloo ak dëkku Tuubaa li ñuy ñuy wax simi similoo jiyatu màggal ak i sakkiram ku ko gi mooy natt yi ma doon nekk moo jur màggal. màggal gi nag ak pay ndax kon la ko li ko sabab waxoon naa kon damay delsi ci li ko war li ko sabab mooy natt bi ci at mu juma rek sëñ bi ni mu baaxoo mu jot mu di ko waajal ngir xam ne nattu yaa ngi bëgg suñu borom xamal ko ne ko nag nattu yi jeex na ak pay gi des pay gi it nag ni nattu yi daa demee rek mu day saa su delsi fu sag fu sag mooy tolloon rek dana ko weesoo loolu nag képp kuy dund màggal yi màggal bu weesu bu agsiwaat da ngay yéene màggal bi gécceel la da weesu loolu kon feeñ ku ne nag da ko yëg ndax sëriñ bi ba mu nekk ci liggéey ba te liggéey ba sotteegul ci la tàmbali waaye màggal bi katabtu yowma sabti inda galwa baxda jihaadi wa firaaqi balwa alhamdulillahi lasi qadrana بيان غير وساخ لي أعراضا فزت لدى جرب وعند بأفلي بما به أنير كل ما أفلي looloo waral màggal bi leeral ba leeral mboolem palaane bi ci àdduna loolu suñu tubaab wax ko fu bëree ba tey fu bëree bëri itam wax ne dana sant suñu borom cant goo xam ne dana méngoog li ma defal looloo waral ci njariñ nag dal yi nag dafa wuute ndax eh, mille neuf cent vingt et un wird ñii dañoo wax dat bi ñii wax dat bi ndax am na ci at moo xam ne sëriñ bi da ko def te siiwalu waaye lu ci mën a xew rek ci dat yooyu la sëriñ bi bi mu ko wootee xam ngeen cosaan la ndax day gudd ak te wax ji dafa xaw gudd ndax gàtt bañ ci njëkkëra yi sëriñ bu laa bisu moo ko jox àddina mu nekkoon ubay sëriñ bi soppali ko am xar sëriñ Balla Fally Dieng it la sëriñ bi digaloon taalib bi ne na leen ko wax kon loolu mooy cosaanu màggal gi dafa waxoon ne képp koo xam ne mbégam sa mbéga bu màggal gi ak seetal na ko ci sant la yàlla ci xéewal yi mu ko fi def bis ba mu njëkkee wootee nag ngir di ko yëgal nit ñi dafa fekk kenn ci taalibe yi ndax mbiru Sëriñ Tuubaa Sëriñ lu ne ak na ko suñ borom dogale ndax dara li ñuy wax sut fa du jàmm fi ko sëriñ bi woote ba taalibe ñëw dafa am benn ci kenn ci taalibe yi ku fekk ak lëg ku rafet ci àllum jaay mi moo jàpp ko indi ko sëriñ bi bi sëriñ bi waxtaanee mu jël lëg jox ko sëriñ bi àddiya xanaa lëg gi di jaaxle na lool ñëpp ne cell mun na xam ngeen lu tax ñu ne ko dee mooy daa sori bokkam mu ne nag nii ci biir tubaab kon loolu mooy màgget gi Cheikh Abdoul Khadir Mbacke daal nett ne Cheikh Mamadou Moustapha moo ko wax ne ko sa bàyyi de nee na ma ajjana di amuti bis waaye bu ñu demee ba ëllëg bis bi màggal Tuubaa daa suñu borom mu bindoon guddi ak bëccëg xam na waxtu moom daal di jot ci àdduna kenn ku ne saa bu màggal gi agsi da ngay xéewal bu yokk ci yow boo xam ne nga xam màggal bi kon màggal bi ba mooy lépp lépp lu ci waaye defee sa bopp nga koy Serigne Saliou Mbacké daana wax ne Serigne Touba nee na ñaar buñ dende kii di ko màggal kii di ko ñàkk a màggal ka koy màggal waxtu ne muy a gis du ko kii di tiime kon la a Abdoul Ahad Mbacké waxoon rek mooy dëgg-dëgg bi waxoon na ne tax a jot suñu bopp moo ñu tax moom suñu moo tax nag ku ci mas a nekk Serigne na ko Sëriñ Tuubaa bàyyi woon noonu la ko def mooy kenn koy di ko màggal sa kër bi Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké ak seen nag moo digle ne nañ ko doxal Tuubaa kenn ku ci ne di ko màggal si mu nekk dajewukaay boo xam ne ñëpp fi daje mu di ko màggal di ci def poste gan ñi itam mu leen di teralal boppam li nga xam ne nguur gam dajeeloon daa leen ko def mooy li jëm ci wàllu sécurité ak wàllu li nga xam ne état la waaye li jëm ci gan yi ñoom ñi fi nekkal Sëriñ Tuubaa seen gan yi bopp yi seen mbirum bopp lañ koy def ñoo koy defal seen bopp ko Cheikh di ko yëgle muy yaatu ba màggal gi ak si fi mu agsi bi mu fi bàyyeekoo itam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yokkaat màggal bi ubbi ba àdduna sépp gën ko xam moom agsi fii tey bi mu fi bàyyeekoo rek Cheikh yàggu fi mel na at la fi am bi Serigne Saliou Mbacke ak say itam mu gën a ubbi ko waat gën a yaatu gën a yàkkaliku ba fii mu agsee fii tey dugg ci suñu loxo mu nekk di ñeex fatra bu jeex ndax fatra bu doonu Serigne Touba jeex na ay sëtam dal ñëw ki yàlla dox nag mu njëkk nekk xalifab Serigne Touba ci ay sëtam mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moom la ko suñu borom jagleel tey ndam ñu ci am rek ak fu liggéey bi àgg ginnaaw bu ñu santee suñu kilifa yu baax yi faaw ñu sant ko ci bu baax Cheikh Mouhamadou Lamine Bara digal ma ñu taxawal màggal bi bi ma ko santee itam fi ma ko tàmbalee mboolem njabootu Serigne Touba waaye dem naa ci kër yi mboolem kër doomu Serigne Touba ku ci ne it kala fa nekkal yaa ko tànnal sow waaye tànnu ko ndax loolu itam la ma ci mooy comme kookaay kilifa kër gi bu ko tànnee muy gën am na ci ñoom ñoo xam ne sax at mu jot dañuy demaat ci seen kilifa laajewaat leen digal danaa ci tudd ku mel Sëriñ Bassirou diiru fukk at yi saa su at mu jotee day demaat ci Sëriñ Mountakha laajewaat ko ndigal ba sëñ bi joxaat ko ndigal mu door jox sëñ Ousmane mi jiite comité bi noonu la moo tax comité bi ni ñu ko noxee danaa ko leeral tuuti ndax sëñ Ousmane mooy coordinateur commi commission bi kon ni mu tëddee dafa am lu ñu tuddee majlisu suuraa majlis suuraa bi Cheikh mu Mountakha lañ defoon jëwriñ bi ma topp ci di ko ci liggéey mboolem ñi nga xam ne ay kilifa lañ nag te bokk ci yoon wi di ay mag yoo xam ne mënatuñoo bokk ci biir ak commission wala ñuy liggéey du ma noonu ñëpp lañ tàbbal ci biir bàyyiwu ci kenn muy ci kilifa yi yoon wi ak lenn ci Cheikh si ñooñu di sottante xalaat di waxtaan ngir bëgg lu gën a jëmale liggéey bi kanam ndax liggéey bi diis te diis seen wax diis yoo xam ne. benn bopp attanu ko kon mooy bi sóoraal mbooy kilifa yoo matul ñi ci ëpp ci nekk ak lenn ci sëti Sëriñ Tuubaa bi mu weesoo nag ma jël Sëriñ Ousmane def ko muy coordinateur comité bi kon nag loolu mooy li nga xam ne commission bi tëdd na ko ñu leen di sant bu baax a baax nag dina gërëm ndax ñoo ñëpp dañoo laxasaayu ndax ci xaside safari am na fu Sëriñ Tuubaa waxe ne aw rëftani mawaahibal ak yaasi yaa man yu naw yaa man yu naw yi bihi qiyaasi loolu war a waral sax waa mawaahibal ak yaasi moo tudd leen ko ndax dafa mel ne Sëriñ Tuubaa dafa tànn mbooloo moo xam ne dañoo wutu ay millions nit ndax yoon mur yëpp xëy jub commission waaye ñu wutu leen si rek waaye di ci def njàmbaar ak positif am na ci ñoo xam ne bu liggéey bi tàmbalee bu mu jeex du ma leen déggal kon xam nañ ne Sëriñ Tuubaa la ñuy liggéey waaye itam def nañ ci ay jéego yooyu ndax jéego mooy boo xoolee ci wàllu gan yi bi ñu door agsi délégation yi ñu ko fekkoon ci ñaar fukki délégation ak ñaar daaw bi fi Cheikh si Moukhtar di bàyyi ko délégation yi dem na ci juróom ñeent fukk ak ñaar kon loolu yokk na ci diiru fukki at délégation yi jóge bitim réew itam ñëpp xam nañ gis nañ ni mu yokkoo kon loolu lépp tam seen taxawaay la ñu leen ci sant leen ci gërëm ci wàllu leeral itam ngir nit ñi gën a xam nit ñi dañ daan màggal si ba agsi am na ñoo xam ne sax xamuñu màggal gi li mu firi loolu nag ci wàllu communication leer na ci bopp ñëpp léegi ambassadeurs yi day ñëw itam dañ daay ñëw ba ñibbi di jàmbat ne dañuy agsi ci cérémonie ba ñibbi duñu xam lu ñu fi jële ni ñu tuddee traduction euh, bi ñu def simultané loolu itam bokk na ci li nga xam def nañ ko ci ku ne xam na ne itam cérémonie officielle bi ci salle bi ñu toog lañ ko daan def waaye mu xat ñu yokk ko ba def ko ay bâche yu yaatu yoo xam ne comité bi moo ko moomal seen bopp di ko def at mu jot mu doon nekk ci condition yoo xam ne dana gën a méngoo màggal ci wàllu njàngum alxuraan bi itam na bu baax a ndax euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké da daa santaane ñu jàng ñetti kenn ci biir lool nag ñu ne kon nag li ki doomu Sëriñ Tuubaa waxoon loolu bu ko kenn soppi nañ ko digle woon rek noonu la noonu la ko Cheikh Sadio Mbacké daa santaane waat ak ñu ko fi wutu biñ dikkee nag ci ndigalu sëriñ bi ñu tàmbali bu màgg desee ñaari njàng bi loo xam ne daara yi dañ ci daje yi ci ëpp sax daare yu bàyyi ko ci dëkk bi lay doon ngir alxuraan ji ak xasida yi gën a dund ci biir màgg loolu itam bokk na ci liggéey bi nga xam ne def na ko bokk na ci li nga xam ne itam ñoom waa mbooloo mi def nañ ko mooy colloque yi nga xam ne dañ ko organiser ñetti at yu jot daaw def nañ ko kon ñu ngi ko war defaat ci 2020 wala 2021 ndax fa ñetti at lañ koy def ak jël sama yi nga xam ne at mu jot ñu def ko loole itam jur na ay résitat yu bari ndax bañ ko jëkkee def ca foire bi def itit bu mag ci jeexeet ki nga xam màggal Tuubaa am na ko ci wàllu culturel am na ko ci wàllu social am na ko ci wàllu économie ndax loolu itam day fànn yu am solo ndax bu ci daa am lu ndax wàllu ruux moo ci jiitu ndax ki màggal si positif bi muy loolu moom jëru biir si wàll social bi am na solo ndax ku ne xam na ne loolu bokk na ci li nga xam ne Sëñ Tuubaa sance na ko Tuubaa màggal bi da ko ëndi ndax beneen dëkk boo dem boo demoon Ndakaaram wala nga dem Thiès wala nga dem Kaolack foo dem quartier dañ ko dañ koy ber da ngay dégg ñaan wolof yi fee pël yi fee naar yi fee waaye loolu amul Tuubaa fii kenn xàmmewul nit ci askan wu mbokk xàmmewuñ xeet wu mbokk benn bëgg-bëgg lañ am benn jubluwaay lañ am jenn yaakaar lañ genn ngëm ko ñu am loolu bokk na ci li nga xam ne def na ko ci wàllu euh, social wàllu économie itam la ko njëkk ñëpp dañ daa wax naan màggal Tuubaa gi yàq na ndax feet yi dafa bëri ci réew mi kon dañ ko war a bàyyi ndax mooy di daaleel économie réew ñu dem ba jàngat nañ ne mboolem feet yi Sénégal yëpp état Sénégal dana ci perte nangam màggal Tuubaa nag waxuma la état bi di ci perte waaye deux cent cinquante milliards dana ko dugg ci Sénégal deux cent cinquante milliards yi boo xooloon taxes yi nga xam ne état bi dana ko ci am dem na ci lu jege ñeent fukki milliards kon loolu mooy taxe direct ak indirect kon màggal Touba lépp loo xam ne nguuru Sénégal def na ko ci rek da ko delloo ci biir màggal ba loolee itam moo jur 2011 bi ñu defee étude bi ñu xam ne màgget gi waxuma la muy nekk lu yàq koom-koomu Sénégal waaye day yëkkati koom-koomu Sénégal ca lañu sàkkoo nag ne màggal gi mëneesu mëneesu ko ñàkk def fenn loolu ñoo ko sàkk dox ci ay jéego jéego yi ma ci dox ci biir du ma ko wax lu jafe la woon ba yàlla def mu sotti kon loolu itam bokk na ci jeexit bi nga xam ne loolu jur na ko bokk na ci li nga xam ne jur na ko it journaliste yi ak mi nga xam ne ñu ngi tàmbali liggéey bi réseautoon téeméer nag daaw li fi ñëw ci journaliste yoo xam ne eh, kuréel gi ko yor eh, jokkoon nañu ñoom dem na ba dañ ko mujj limité ko ci ne mënatuñu weesu junni ndax ëpp na kon loolu itam ci diiru fukki yokku yokk nañu bëri bëri boo koy xool ci fànn yu bëri bëri ci wàllu bitim réew bi ñu tàmbali màggal gi dama ne woon dañoo bëgg def ko ci mboolem continent yi moo tax ñu tàmbali ko ci France def ko ci Espagne def ko Italie def ko Amérique def ko Gabon kon continent yi daj na ba keroog ñu ci amaat leneen ndigalu sëriñ loolu itam am na jeexit ndax jeexit ji mooy. la ko jëkk màggal gi dañ daa dem ba agsi ci màggal gi ku ne di ko dund loola nag ñun la ci doonoo suñu jubluwaay mooy bu weeru safaru tereetoo ña nga xam ne ña nga bitim ku ci doontu murit tam da ni nga gise ñuy dundal màgg gi da nga ci gindi ko ci mbirum Sëñ Tuubaa te gindi ko gindi ci mbirum Sëñ Tuubaa rek am dimbal am na jeexit ndax fii ñu toll màggal gi bu weeru safar teroo koo xam ne waxuma la nga di bokk ci yoonu Mourou sax waaye tubaab yi ndëkkee sax bu weer safar teroote dana yëg ne màggal gi agsi kon loolu tam am na jeexit dund ba fii mu ne itam safar yi nga xam ne ñu ngi koy dundal moo jur weeru safar yi bu agsi rek adduna sépp di ko màggal liñ daa tuddee karawaan karawaan baat bi dafa xaw a diis ndax li Sëriñ Tuubaa di wax lakinnahu jarahu nisfus mihi li yarba fa xasdu kulli mu min sumaahu samaan lu ne rek tur wa ca am solo baat bi nag li muy firi ci wolof mooy xaafilatu ci arab mooy dox rek ngir xeetu jeexit sëñ bi waaye nag baat bi dafa méngoo lool ak ni yëpp ma baat yi yoon moo tax itam ñu soppi ko tuddi ko doxub safar muy euh, ala athar cheikh ndax lu ne itam tur wa da ca am solo ndax lu ñuy wooyee jëme ci nuru Sëñ Tuubaa lu ne boo déggee tur rek daa war a nuru nuru si bi am jeexit ci loola itam am na jeexitu rëy ndax ñaari barab rek lañ daa dem foo xam ne njurum Sëñ Tuubaa kenn xamewu ko fa ñu fexe a def fa ay ndaje di fa def ay waxtaan ba ñooñu gindi ko ci mbirum sëñ bi ak barab yi nga xam ne Sëñ Tuubaa jaaroon na fa ñu dem xeeñtuwaat jeexit sëñ bi dund la ko moom jeexit ju ndax bari na ci délégation yi ñoo xam ne da Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad daa wax naan xelu Sëriñ Tuubaa xëyu leen woon waaye léegi ñu ngi ñëw ci màgg bi di jënd ay nag di ko jënd te loolu jeexit yi ñoo ñu ñu dee tuddi waa karawaan bi moo ko indi loolu itam ba fii nii fas na jéem ren mu continué waat eh, di wéyal liggéey boobu insha allahu itam première safar bii bu agsee itam eh, jox na ndigal ci njaariñ keroog bi muy dem ne ma naa wax sëriñ Mamour Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne daara alxuraan yi ci moom loxoom la nekk ñu àggee ci bis ci safar mu wootee ci jumaa ji ñëpp jàng fii kaamil ubbee ko alxuraan ndax Serigne Touba lu ñu koy defal rek ci alxuraan dañu ko war mu demee ba guddi nag sëriñ Hamsatum sëriñ Chouaib mi nga xam ne kon ne xam na cër bi ko sëriñ bi dafa ci xasida moom itam sëriñ bi jox na ko jigéen guddi gi mu dundal ko àndal ko ànd ko mboolem ñu yëngatu ci biirum xasida ñu fanaan ci jumaa ji dundal ko ci xasida ngir waajal ko safar mboolem dëkk yi itam nag fenn fu ci ne ñoo ko daa def ñëpp yeesal nañ ndigal li fu ci ne incha allah fas nañ yéene yebal fa délégation mu dem fa ànd ko ñoom dundal ko ñu waajal màggal yi ngir kii màggal si xam li ko yëkkati loolu lañ ci waaye màggal gi nag fii la ci Tuubaa waaye nag bëgg nañ kenn koy ci ne booy jëm si ci dëkk bi nga xam ne li yëkkati lu moom ca ndakaaru itam Masaalikul Jinaan wax naa ko keroog bu ma fa demee eh, moom itam Serigne dana ko woote am na bis boo xam ne danañ ko fa def comme nañ ko baaxoo defee ngir loole itam lañ ci jublu mooy gën a leeral nit ñi ñu gën a xam li nga xam ne Serigne Touba moom la bind gën a xam li li nga xam ne itam mooy njàng dem Serigne ba mu gën di def ñu gën a gindi ko ci biiru ko ci leen tax mu màgg bi ñoom itam ci quartier yi ci Dakar yëpp dañu ko def ko Moussa bu ñu ko tëjëwaat ko fa door si Tuubaa ci biir kër sëñ Tuubaa gi itam Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe na ndigal daanañu wax bis bi waxtaan naa ci ak sëriñ Abdou Lahad ak sëriñ Ahmadou Badawi mi nga xam ne mboolem lu ajj ci njàng mi ci université bi ci loxoom la ko sëriñ bi teg mu ànd ko ñu ngi ko saytoo ñëpp danañ fi def mel ndaje mu yaatu moo xam ne dinañ ci invité mboolem université yi Sénégal invité borom xam yi ak ñu yor ay daara ji Sénégal invité ci sax ñi nga xam ne bokkuñ ci yoon bu waaye xam-xama dañ tax li ngir waajale ko liggéeyu sëriñ bu mag bi te ñoom tam ñu dox ci ay jéego def ci ay xalaat yoo xam ne xalaat la yoo xam ne bu génnee rek ñëpp danañ xam ne lii war naa mën a defar dëkk bi kon daal loolu bokk na ci programme yi nga xam ne am na ci màggal yi mboolem liñ ci daa def nag dara soppiku ci li ci xaw a soppiku tuuti rek mooy ku ne xam ne ne sëriñ bi fii ci biir kër gi incha allah bu àndee dogalu yàlla fii la fas yéene dundale màggal yi ni mu ko defee ci koor bi parce que du def ñetti fan yi kon baasu exposition bi ñu daa def ci bundu kër Cheikh faa Fadil ren dañ koy toxal ndax bundu kër Serigne Touba gi fi lañ ko def waaye baas xaju fi. te sëriñ bi mënta sori xasida yi moo tax mu jox ndigal sëriñ moom Cheikh Mamadou Fadil waa Hizbut Tarqiyyah baas bi ñu baaxoo def ci buntu kër xelif sana du murid ñu def ko foofu ngir mu jege sëriñ bi daa waxtu wu ne day bëgg dégg njàng mi ndax ku xam na ni mu koy dundee lii baasu exposition bi ñu fas yéene ko def ca buntu kër Sëriñ Tuubaa bi ci Daaru Manaan ndax lool itam dafa bokk ci li gën a ñor ci nit ci màggal bi moo tax loolu itam dara wër ca dara ci biir délégation yi itam ci biir programme màggal gi xam ngeen ne waa Mauritanie Serigne Touba da leen a fonkoon kër bu masam ber na leen fi kees njaari wurta leen doon fii ci Touba fii ci distinction bi bu ngeen déggee ñu koy tuddee Daaru Naar fala sëñ bi daal dara naar laa war waral at mu jot ñu tànn benn bis jagle leen ko di leen ci taral ngir dàkk ci bëgg Serigne Touba ak mboolem yi nga xam daana ko def gan soppi ko um ci amul yan loxo ne ndax sëriñ bi lenn lu ci ne ku ci ne te jiitu commission ak ñu topp ci ginnaaw bi ak nañ ko daa doxale xamoon na ko sax waaye nag fi nekkal Sëriñ Tuubaa lu ci ne maanaam sax min ayatin aw nunsiha naati bi xayrin aw mislihaa moom lu ko ci neex soppi bu ñu demee ne subar màgg bi sax bu ko neexoon soppi nii ndax yëfam ndax xalaatam mbiram ba ñu ko wanee lépp war naa ko ko ñetti yoon ba démb ci nit waaye mu ne amul dara lu ñu ci soppi lu ci nañ ko daal doxalee daal nañ fexe bu gën ko defoon te koo sell te gën koo fonk amul dara lu ñu ci soppi kon daal loolu ci tënk mooy wax li nga xam ne waroon nañ ko wax li ci des nag duma ci mën a wax ndax euh, sëriñ bi ni nga ko baaxoo defee ci première safa bi ku fi nekk Sëriñ Tuubaa danay yëkkati ba fa mu kàddu goo xam ne ci làmb ñoom lay bàyyi ko te moom mii kat mas naa wax Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak Cheikh Sidi Moukhtar neneen seen genn kàddu moo gën suñ junni kàddu waaye ñu itam loolu lañ koy wax mooy genn kàddu googee moo gën suñ junni kàddu ci biir liggéey bi nga xam ne itam waa communication bi danañ ko def am na ay documentaire yu ñu def ndax loolu itam damaa xalaat ne Serigne Touba li liggéey am na ci doxal ndax gis ngeen wax ji gudd na xëy na nit mënta am toog ci benn jotaay di ko seetal bu ñu koy defee ci documentaire na xëy na ci lay gën a yomb ci nit ki moo tax ma xalaatoon ñu def ñeenti documentaire ren documentaire benn bi day jëm ci jëmmi Serigne Touba jëmmi Serigne Touba ci dolli jëm ci dëkku Touba ndax dëkku Touba dafa mat a ndax dafa bari dafa bari ay yu ci aju ndax ni ma ko doon waxee bërki dem boo xooloon tey li fi ne ci ay daara amul fenn ndax junni daara 1296 daara motoon na ko daw li fi ne ci ay juma mat na téeméeri nagam bokkut ak jàkk jàkk ay téeméeri téeméer kon loolu itam dafa war ñu génn ko leeral nit ñi li fi am ci dëkk bi ci wàllu jaamu yàlla waaye li fi am ci wàllu économie lu ci ne ndax mooy ñaari dëkk bi gën a Sénégal kon lool itam lu mat di leeral nit ñi dañu xam ko ndax buñ xëymawut li fi war a dëkk xayma li fi dëkk bi mu toll xëy na li fi dikki lim toll kon lii seen ak ñoom duñ ko mën a xam ñi leen ko war a defal dem duñ xam seenu mbay mu toll te Serigne Saliou Mbacke daana wax ne sëriñ Touba nee na ak maandoo mu ngi tàmbale ci yemale ñu yàlla yemale ko kon nit ki itam boo koy nattal bu faaw nga xam ni mu toll mu toll benn documentaire bi itam mi ngi jëm ci mboolem xalifa yi Serigne Touba yi tàmbale ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci ak Cheikh Sidi Moustapha mi nga xam ne moo fi mujj kenn ku ci ne sëb day danañ ko tënk def ko ci benn documentaire ñu xam ne ñoom itam Serigne Touba dafa ñaanoo suñ borom ba suñu borom may ko waaye kenn ku ci ne itam la la war ci sa mission defoo ba mu sëkk danañ defaat beneen documentaire nag boo xam ne kii fi yàlla teg tey di Cheikh mun taxaar moom lañ ko jagleel ndax moom ko ne xam ne taxawaayam fa mu tàmbalee ba mu agsi ci pëstéefam ak dogam nangu kilifteefam ak ak jaayanteem même fi mu taxawoo yoon wi ak fi mu ko yóbbu loolu lépp itam def nañ ci benn documentaire bu jëm ci jëmmam ak li ñu war a jàng ci moom te la ci jiitu mooy nangoo topp sa kilifa ak topp ci ak ak ak ak ko ndax moom dama daa wax bi fi ay kilifaam bi nekk na ma samay kilifa dama leen bàyyee sama bopp bàyyi ko bàyyi leen seen bopp ma ku ma ci jëm bàyyi naa la sama jëm bàyyi naa sa jëm kon loolu itam tey loo ne lu ñu war a jàng ci moom lu rëy la jàng jàpp la koy ci naalam wu rëy bii nga xam ne am na ci yitte ju rëy am ci positif am ci dogu mooy eh, daara Serigne Touba ji nga xam ne manis naa wax ne naal yi fi Serigne Touba bàyyi moo fi des ndax Serigne Bakki Bousso leetar bi nga xam ne bindoo na ko wax na ne Serigne Touba ñetti naal lañ xam ci lu mu bàyyi ba ci jiitu mooy yoonu Makka ndax bind na ko sax diis na ci moom metti na ci moom mu dem ba tàbbi àjjana te demul Makka waaye Cheikh Mouhamadou Fadil ak Serigne Gaawaan motta nañ ko yéene moo tax sëñ Abdou Lahad mboole ñu daa yóbbu Makka li mu ne taaf mooy def leen ko addi Cheikh Fadil ngir motta li yéene ba ca dolli ko nag mooy jumaa Tuubaa jumaa Tuubaa yi ku ne xam ne ne nekkatul aw naal waaye waaxee la kon benn sóobu rek moo ci def mooy daara joo xam ne Sëriñ Tuubaa dafa wax ne suñu bakk bi sax dafa wax ne sëriñ bi dafa wax ne dafa bëgg mu doon daara joo xam ne day fu ne la nit di bàyyi ko di fi daara lay doon yooyu daara doon lay doon yoo xam ne itam ku fi dikki sa riir daan dañ da gindi bu faw li mu ko waxee rek bil Mustafa lii banal qudduusu madrasatan biha yazaalul aza wal jahlu wal kabru kon loolu muy loo xam ne itam ci biir documentaire boobu yi ñëpp war nañ ci jàppale suñ bi ndax mel na ne jenn yitte jooju ak wenn naal woowu am te somb lu wax naalu rëy la waaye nag la tabax jumaa njaareem ji jëre bi njaareem ba indi ko Touba ca yooyu jamono toj carrière bi tabax jumaay Touba tabax daari kenn bi tabax kër Sëñ Touba bi tabax Touba ba mu fii loolu la xaju ci seen boobu ca biir géej dafa wax ni dafa wax ni dafa bindoon ci ay loo xam ne da doon fàggul taalibe xéewal suñ borom nag xamal ko ne ko looy faggul sa taalibe yi rek na ci boole méccam yaxantu ndax mooy xéwalu mujj jamono nee na ma bind ne ma bind ne aadda nii jannaati addin tajri min taxtiha al anhaaru mujjal qadri nee ba ma ko bindee nag nee na yi sotti ko ak mbewte dugg taalibe yi ñu di ko soppandiko ak di ko jëfandikoo fu neexul say borom nee na ma am ci jaaxle am ci tiitaange nee na ma laaj ko suñu borom nag mu ne ma yaa bindoon ne àddina ne ko soppi noon gi ak laam ñaare Sëriñ Tuuba nag soppiwaat ko ne àddali a xaj àddin tajri min tahtiha al-anhaar nee na mu ne ko nag kon danaa leen defal xéwal waaye ak ak ak dootu bi ci toppal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laaj yi ñu doon laaj yëpp sëriñ bi tontu na ko xanaa rek di ñaan eh, mbooleem naa li nga xamante ne bii sëñ bi wax na suñu borom jox ko ci ndam yàggal fi loolu sëriñ Muntaxa Mbàkke euh, liggéey yi mu naanal sëriñ Tuubaa yëpp suñu borom jox ko ci ndam lu wér a wér a wér kon lii rek la presse bu Sénégal doon sàkku ci sëriñ bi muy ay leeral ci dëkk bu tedd bi di ay leeral ci ku tedd ki di Xaadimu Rasuul waaye tamit di ay leeral ci bés bu tedd bi di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf